moom yaayam bisu 31 décembre bi la làqu ñu rob ci bis bi mhm. pikin ñu ngi ko koy jaalee bu baax sama xarit bu baax la bu ma yàggal mhm. kon ñu ngi koy maso bu baax presque 31 bi fa la nekk ba ba muy guddi ah, ah mais noonu la yàlla ñii di bànneexu ñii di nekk ci naqar àddina ne tëddee na ah, yàlla yërëm ko moom amin amin amin maay ba pen ah, léegi euh, bu dee sëriñ pare na comme niñ ko annoncé woon rek euh, ci départ bi mhm. mooy at mi lañu fa yéene xayma ak at mi ñuy dugg tamit lan la ci nit ñuy xaar Euh, ñu dem ànd ci ak kër Diouf. non man Kazu Rap bi laa déglu si laa nekkoon di wax dëgg moo ma intéressé quoi c'est que den sonn quoi si bu mu njaameeg léegi dafa war a dog wut wut samay boo commencé tëgg ànd ak gars yi ambiance dund ambiance ba vingt heures ma doog a ñu sama liggéey. waaw ah, ni mu ko dundee mooy man wax dëgg yàlla bon suivre naa xale yi man sax vraiment dóor naa casserole comme ñëpp après bi mu paree c'était 30 minutes jël naa discours président en bon loolu yëpp moom it gis naa ko quoi. pour nga juger parce que fi localité bu ma nekkoon moom vraiment muy grand fi vraiment xumboon na au niveau tamit Dakar tamit gis naa tamit vraiment xumboon na bon mënoo ma def euh, approchement wax nii yëpp ni nii moo gën kii mais gis naa nit ñi daal même ñu manifesté wul tamit seen kii euh, quasi totalité Sénégal yi d'accord nañ si si si si kiiw casserole bi quoi concert casserole damay dund dund ko dama ñàkk pexe si moom rek mais amatuma dara si moom léegi ñàkk pexe rek mu may jàllale si moom quoi. den sonn fuñ dem bu ñuy jëgatee ñu fa commerce bi doxatul dimbalu ñu si wàllu commerce bi fuñ dem fu na ñuy jëlee ñu fa marché yëpp yàq nañ leen lépp moo ko waral lépp moo kenn warlu ko moo ko waral na jàppale SONES bi ñu liggéey dégg nga den bayee ko fi ba village ñu di daan suñu doolee nee ñu may ñu liggéey waaw en tant que loolu mënoon am nag mëntu wax moom lu ñuy saf dañuy dimbale ñu dimbale ko suñu dimbale duñ ko dimbale. ku nekk yaa ngi sa rôle c'est normal président à chaque fin d'année mu def discours à la nation l'opposition bu fekkee di sentirul moom si si. si discours bi gis si gis boppam am na droit aussi manifester autrement ku nekk yaa ngi sa droit man noonu laa gisee. li ma jotee jot si musique Macky Sall sax que da doon def bilan bilan tàggatoom juste waaw parce que bu def na réalisation yi yëpp def na ko parce que gis na ko lu mu ko gisee bilan tàggatoo la quoi parce que noonu laa gisee et nga def sa bilan wax sa tàggatoo laa ko gisee waaw li wax la réalisation mi nangu nañ ko ko. ñoom ñëpp seen bopp leen ñor ñi dañu wax pour falu ñu wax pour toogaat. loolu rek laa gis man moo tax ma nekk sama bopp waaw gëm na réew mi leen tax a jóg ñoom ñëpp kenn ku ne sa bopp nga parce que boo dee xool ñoom lu ñu xeex yàgg nañ ko fi xeex yàgg nañ fi am ay rapport yi génn xam nga te du mujj fenn naa ne ñoom ñi bu ñëwee noonu lay demee ay rapport lay ñëw di leen épingle te du laa gëm <laughs> mi ngi noonu kon askan wi tey lan delloo kàddu gi rek ci place invité yi ngir ñu wax euh, seen xalaat euh, nan la ñu gisee ak concert de casserole bi euh, ku ne ak ni nga ko gisee ñii jàpp na ni discours tàggatoo la ñii jàpp ni concert bi li war la ñii jàpp ni ñoom ñëpp a yam mburu foofu ko fërit rek boo tënkee kàddu yi ak ñoom ni ko waxee léegi balaa may joxe kàddu gi rek d'abord concert de casserole bi sa tëgg nga. waaw <coughs> mbalax naa de. da nga may tontu après nga wax ma lu tax lu tax nga mbalax. ajarat tëgg nga. <laughs> maa jigéen tëgg nga. grand concert ga loolu kañ la woon. Eh, concert Kazu jour 31 décembre bi. loolu de yëguma ko woon. yëgoo ko. yëg incha allah après dinañ wax lu tax yëgu ko. non non xam naa li ma nekkoon ci festival nag moo taxoon. waaw ah, eh. ah, loolu moo taxoon. ah oui mi ngi noonu comme les artistes porteurs de voix ah. des fois man loolaa li ni critiquer quoi après dina ci ñëw mi ngi noonu eh, man tëgguma waaw ah. <laughs> tëgguma parce que benn comme li ma doon wax dëj bi ma demoon ci yoon bi la ma fekk mm. bi may yegg si Kër Massar bi Macky di wax li ma gën a marqué mooy loolu maanaam sama yaram dafa daw ma xaw a yërëm Macky Sall ko waaw ah, parce que bi ñu demee ba njiitu réew mën a toll foofu ab askan maanaam lu solennel loo xam ne ñëpp doonoo waroon wax ni mi ngi wax comme ni ko Abdou Diouf doon defee mi ngi wax ñëpp jug Abdoulaye Wade ñi ngi wax ñëpp jug ngay wax ñëpp ne kenn du la déglu bu dee am na ñu lay déglu sax même bu dee ñett ñi ñuy fëgg pot rek loolu message bi léegi nag euh, ku ne ak ni nga koy jàngatee lu jekk la lu war la wala warul ku ne ak ni nga koy contesté mais man si sama façon man dama ne du ma déglu Macky Sall après déglu naa débat yi déglu naa revue de presse yi mais di ko déglu muy wax man duma ko def pour la première fois peut-être may jël décision boobu mooy benn ñi ci kaso bi man bokk na ci région yooyu ma 30 personnes nga dugal leen kaso ci délit d'opinion maanaam ñoom ak wax ak bind rek. maanaam yow li nga bëgg a wax yaa ngi koy wax mais ñeneen ñi gëm leneen wax ko nga ne duñ ko fi waxee nga tëj leen ci kaso bi man tax na ma jëloon décision man du ma ko déglu beneen bi ci topp mooy Pape Alé waaw pour xeexle ko man bokkoon na ci sama position mooy man duma déglu ma Sall parce que jamono jooju moom miy wax war a reer yi ak njabootam am na ñu nekk ci kaso bi injustement ñu téye leen ci jamono ji ñuy feetu ñu xañ leen feet bu dee ni danoo def sax da leen war a atte ji mais du kenn kuñ ciy atte da lay denc rek comme si da nga ab xar mu ñu jël rek yow ko fenn ba ko fa comme mu yomb trop quoi maanaam jàpp nit tëj dafa yomb ci Sénégal man loolu bokk na ci li ma gën a metti ci régime Macky Sall léegi tamit dama ci xaar woon lu bari lu tax déglu ma ko te loolu bi mu paree may déglu débat yi rek dem ci réseaux sociaux yi rek am naa raison parce que foofu laa ko doon xaar mooy dina wax li ko ñor ak bëgg-bëggam comme ni mu ko tàmm di defee mais est-ce que dina wax li sénégalais yi bëgg ak li ñor sénégalais yi man doon naa xaar lu mel noonu mais gëm naa ni moom li mu gëm yëpp wax na ko mais fi ko nit ñi doon xaar génn fa mooy rapport Cour des comptes bi mu gënoon ci yaatal même sax bu dee ni day sóob mu ñëw ñàngal soob na lii bi kenn du bàyyi mu jàll kërëb kërëb parce que pour moins que ça ay nit démissionné nan Abdoulaye Diouf saar responsable moral la rek ci ab hôpital boo xam ne ay nit ay liir ñoo fa dee moom du docteur dara mais comme moo jiite rek dañ ko poussé à la démission mu génn wala ñu daax ko ay nit ñoo xam ne tey jii ay nit ñoo doon sonn alal jooj ñu fob ko même bu dee benn dërëm nit ñooñu ci teggin da leen war a pousser ñu démissionné buñ démissionné ñu dàq leen mais ci biir waxam dafa cox wax ji rek dem alors que lu gënoon a ñor askan wi ci discours am pour man ëpp lool beneen bi sopp mooy mbiri mandat xaaruma woon mu wax ci parce que situation bi favorable lul pour Macky Sall benn vendredi danoo def euh, rassemblement bu réussir ci opposition bi ak société civile bi ci affaire Cour des comptes. contexte bi favorable pour ngay wax parce que jamono ji la askan yëpp mere ay concert de casserole nga génn ci wax loolu mooy yaa ngi yokk na euh, naa ngi yaa ngi yokk xar mi karaw te Macky ku mën politique la kon du woon moment bu baax pour moom pour mu wax loolu bu ko waxoon gëm naa ni Sénégal fii lay jafalu jëm 2024 kenn du mën a téyeti réew mi kon moment la bu gën man bu ma ko doon conseillé dama naa ko bu ci wax tey gëm naa ni loolu tamit waxu ci parce que amaat na yeneen occasion pour mën ci wax parce que avril mi ngi fekk yëpp pour mën ci wax parce que des fois il faut mbir favorable pour yow léegi nag bilan bi mu def pour boppam lu jaadu la mais aussi tamit perspective yi mu am yéene yi mu am mais yéene yooyu kañ la koy amal comme même bu ñu waxul ni bëgg na troisième mandat mais ci ab yéeneem parce que yéene yi bu jéggee at rek kon li yéenewu ko pour keneen boppam la koy yéeneel kon fi mu ne moom jàpp na ni war na mën a amaat beneen mandat même bu ko waxul nit ñi dégg mais li mu naal ak li mu niisar moom président de la république liñ ciy jàngat mooy am na bëgg-bëgg mais am na yéene mais am na fu mu jëm mais am na ci yoo xam ne nag daf ci bari ay càngal ceeb parce que bi ma ci gën a ñor mooy bi muy wax ci laay lycée Seydina Limamou Laye 2018 2017 discours am boo demee li mu ci waxoon la waxaat maanaam dinañ defaraat lycée bi dinañ ko liwaat mais mille boobaag léegi 4 ans. laalu ko tey mu ñëwaat même diggee yam mu diggoon pour li Seydina Limamou lay moom la diggee mais aussi dëggal na ni te dëkk bi ndóol gi mi ngi gën di yokk parce que bu nee bourse de sécurité familiale man du ma ko xeebal kenn bu ma ko soxlawul am na ñu ko soxla mais bu nee day jugee ci vingt cinq mille dem ci trente cinq mille léegi mooy wane ni te jamono jooj mu koy wax tey maa ngi def journal léegi retraité yi yu nekk ci podoor ñoom jotaguñu seen i pension yow jamono ji ngay jël di maye wala ngay saraxe jamono jooju am na ñoo ameel bor yoo xam ne ci ay retraite fayo leen beneen bu ci topp mu ne registre 500000 mais day dem ba un million ci ñi mu ko doon jox mooy kon Macky dëggal na ni ndóol gi yokk na ci réew mi. alors ko jamono jooju ngay jox nit ñi li ñuy nappee maanaam li ngay maye jën nit ñi mais utal lañ li ñuy nappee créel fu ñu nit ñi liggéeyee fexeel ba kër gu ne nit di fa gagné cent cent mille wala deux mille ngir mën di ko jox ay waajuram mais est ce que danoo war a sax rek ci tàllal rek ñu ñuy sarax pour man xaaruma loolu ci président Macky Sall pour man foofu dafa dëggal ni moom échec na ci ni mu waroon a taxaw askan ci wàllu dund. man ci loolu laa jàngat ci li mu wax léegi nag euh, grand après ma jox la léegi ma ñëw ci maa jigéen te yow euh, concert bi tëggoon nga mais aussi xam naa ni déglu woo ko mais après rattrapé wu nga ci réseaux sociaux yi ak revue de presse yeeg yooyu. Euh, bi bi bi bi discours bi jàllee ba noppi man jot naa am kii bi. Hmm. écriture bi euh, bi nga xamante ne nii bind nañ ko ci li mu jot a wax vraiment li ngay wax noonu sax si affaire Limaamu Laay ak euh, yeneen école ba waxaale na si sax si euh, bu Malick Sy bu Thiès mu wax ne dinañ jéem a defaraat parce que temps yi passé si ginnaaw rek gis naa benn école xaw ma Kennedy la. xaw ma kii benn lycée bu nekk fii Dakar ñu gis ni affaire bi dafa commencé woon di màbb ba xam naa sûrement loolu moo tax mu ñëwaatoon si mais nag warul nekk loo xamante ni nii dañ koy wax parce que lycée yooyu noonu c'est des lycées historiques dafa yàgg kon jot na à ñu jéem a xoolaat ñu ñuy def ba buñ ko mënee defaraat ba mu gën a ñagaat parce que nit ay bakkan ñoo fay nekk te ay xale lañ ñu fay jàngee kon nag fu ñuy nekk fu nekk rek war na nekk foo xamante ne nii duñ fa am tiitaange wala leneen gis naa ko tamit muy wax si si si xëyu ndaw yeeg yooyu te man jàpp naa ne su fekkoon mu ngi ci euh, am na am na am na avancement euh, mën naa jàpp ni sax échec la parce que bu fekkoon am na avancement rek kon euh, xale yi du ñu jéem a def seen xel yi ba léegi ñaar sëkk ñuy def émigration clandestine vraiment mu nekk ay mbir yoo xamante ne nii moom nag war na si bàyyi xel bu baax a baax yaa ngi wax si mbirum troisième mandat bi sénégalais yu bëri loolu la doon xaar sëkk mu wax si a nekk lu tax waxu ci mais rapport au cours des bi aussi moom dafa ñëw rek ne dinañ ko topp dinañ ko topp boo xamante ne nii Sénégalais yi fi ñu toll nii ñëpp lan la ñuy xel di wax nañu jéem a lijjanti mbir yi xaalis bi fu mu duggoo keroog gis naa benn vidéo boo xamante ni ay Baye Fall dañu taxaw sax di wax ba ci dugal sëñ bi di wax ne xaalisu sëñ bi dinañ ko gokke parce que bëgguñu jël alal joo xamante ne nii ñëpp dañ ko génne woon Sénégalais yu bëri participer si après ñu ñëw toog fii ñu ñuy wax ay dugg na fii génn na fii Ismaïla Madior Fall tamit gis naa ko si benn interview bu mu def muy wax euh, cour des comptes sax amul droit même bu fekkee am na droit génne sax du ñoom ñoo ñuy wax ne nañ ko topp ou te mbir la moo xamante ne nii alalu sénégalais yi la nit ñi ñoo ko moom bilan bu mu def tamit c'est normal wax na ci terre bi àggale bi mu koy àggale euh, dem ba euh, mu war a dem ba jëm ñaajo ak autopont yi nga xamante ne ni ñi ngi koy def yooyu yëpp c'est bien mais tamit na gën a bàyyiwaat xel que ni benn mandat moo ko ci de moo ko fi defee moo ko ci dese nee dina tabax ay écoles yeneen écoles yoo xamante ne ni man jàpp naa ni tabax nga ñaari école nga ni yow benn at bi la desee di nga jéem a fexe ba yeneen fukki école am fi man loolu man jàpp naa ni munta munta nekk sax parce que da nga fee toog 10 ans yoo xamante ne nii euh, à chaque fois da ngay gis yenn mm, dëkk yi ñu ngi lay wax lycée amul ci dëkk bi euh, soxla nañ lii soxla nañu nangam boo nee nag ci diggante mille 2023 bi daanaka 10 mois rek moom moo ko fi dese nga bëgg koo tabax day daal di métti ay promesses yi nga wax tamit def na ko ne euh, d'ici 2023 jàpp 2024 ba 20 2025 dina indi ay dige loolu moom boo ko déggee rek day mel ni comme si moom pareegul pour pour juge fi te vraiment nag bëgguñu benn problème buy am ci dëkk bi parce que yow balaa ngay toog yow loolu nga doon xeex ba tax sénégalais yi ñu teg la fi kon donc su fekkee ne yow kàddu yooyu noonu nga euh, baabee woon nit yi ba toog fi tey boo ko bëggee dindi rek dafay mel ni comme si da nga war sénégalais yi te li euh, sëñ bi di wax rek à chaque fois nit moom sa kaddu démb ak say kàddu tey suñu wut suñu wutee rek yow pour nga waxati sénégalais yi lu ñu gëm rek day daal di métti concert bi nag vraiment sénégalais yi ñoom ñooy wane waat seen nakar rek parce que dañu fi toog eh, teg la fi à que ngay saytu pour ni ñun ñun sénégalais yi ñu nekk si si conditions yu baax dund gi bañ a cher eh, ñu gis ni problème yi bari na ci Sénégal moo tax xam naa sûrement nit ñi wane woon seen colère en tout cas daal doy na waar trop Omar. waaw <laughs> ah, comme ça ay suivre moom mënuma ko laaj dara ajaratu. waaw euh, loolu yow yow moom tëggoo pot. non non non tëgguma maa ngi doon feetu en famille même discours président bi ngeen di wax sax seetaanuma ko dégluwuma ko très franchement. parce que aussi nit booy wax dangay wax rek te yàlla tax mais li ma ci dégg euh, li ñu wax man li ma ci gën a ñor mooy lii lycée lycée Limamou Laye se mhm. d'excellence la. Mhm. lycée boobu li muy def ci ay résultat kenn xamul nu mu toll. Mhm. te état de délabrement bi mu nekk mi ngi bëgg yàgg. dafa yàgg euh, barki Dembo Ndiaye seetaan naa ci benn tele ñu def fa reportage mais da ngay tiit da nga naan fii est-ce que xale yi war nañ fi toog di jàng. Mhm. ñu mur yi boo nekk mur nga mu wadd. yu ci bari voilà. muñ ko ci boolewaale sax di wax ne. mi ngi noonu mais dafa di loo xamante ni jàngukaay la donc boo bëggee tabax say ndawi réew jàng bokk ci li nga xamante ni da leen di tabax aussi fa ñuy jàngee war nañu leen mën a jël euh, ba pare. Euh, sàmmal leen seen i mhm. dund ak ñi leen di jàngal mhm. donc muy loo xamante ni euh, dégg naa ko ci mais li may wax rek ci euh, li nga xamante ni moo di dund bu cher bi mhm. lu nu duut baaraam la du du ko kenn sosu ko ni rien bu yow boo ko dundul am na ko tax ci yow ku koy dund keneen ak keneen di ko dund donc moom mooy loolu nit ki boo ko boo ko facilité mu am li muy lekk mu accessible ci moom li muy naan li nga xamante ni da koy soxla au quotidien defe naa ni loolu dañu ci dañu ciy dimbali et man bëggoon naa aussi mu taxaw ci loyer bi nga xamante ni bailleurs yi nee nañu wàññiwunu te locataires yaa ngi bëgg dee bëggoon naa mu jël ci ay mesures yu yu yu dëgër yoo mhm. xamante ni euh, ba pare mu am suivi également ñu dimbali locataires yi nga xamante ni sonn nañu aussi yooyu yëpp da ko jox assemblée quoi parce que nee na waaw pour ñu vote metti yëpp da koy sànni Amadou Ba wala assemblée waaw ba tey mais man daal lu mu ci mën ci doon mhm. nañu dimbali euh, locataires yi sonn nañu man man je crois que loolu quant à li ci des nag malheureusement c'est kiiwuma ko mhm. c'est bien ça yow ça moom <laughs> tëgg na ay pot ah sa ça waaw xam nga euh, xam nga euh. man moom euh, ab na loo xam ne bi nii laa ko doxale d'abord seetaanuma discours bi aussi tamit dégluwuma débat yi parce que dama jàpp moom loolu sax wax naa ni gars yi nga xamante ni bi ñi ngi organiser woon kii yi waruñu woon a nangu di dem ci débat yi ah, que dem ci débat yi dafay xaw a contradictoire quoi ah. parce que yaa ngi ñëw débat yi li président wax lañ lay laaj mm. te yow wootee nga ne eh, dañuy tëggi mm. loo dégluwut loo ciy débat mm. donc euh, il faut que nit ñi tamit cohérent ci seeni seeni loolu quoi mm-hmm. moo tax yàlla def na li ngay wax nii li <laughs> nii sax loolu laaj mais man vraiment wax dëgg fa yàlla euh, suivre ma kii bon li ko waral nag man dama jàpp ni euh, ñii tëgg bokk nañ ci ñi nga xam ni ñooy dimbali président parce que man dama jàpp ni Sénégal dafa nekk ci benn euh, xandaalu boo xam ne wërngal boo xam ne dafa am ñenn ñu sës ci moom rëkk ñoo xamante ni bii yoon wiñ koy bamax musiba la ci réew mi ma jàpp ni réew mi nekk na réew moo xamante ni bi tey dafa am loo xam ni président dafa am ñu mu àndaloon démb ak bërki démb mm-hmm. doon xeex tey ci li ko ñii di bamax boo gisee ma dem tëgg dama tëgg c'est pour mu xam ni bokk naa ci ñi nga xamante ni bii kat ñi koy tàllal loxo la pour génne ko ci li nga xam ni nit ñaa ko ciy bëmax la te mu doon musiba réew mi te loolu moom mu waxoon ci lu am solo ci ay jamono mu waxoon ni imaam bi dañ ne ko julli gi ñaari ràkka la mu julli ñaari ràkk bëgg a dolli sëlmalal maanaam li mu doon wax ab Ablaye Wade démb mu nekk ay wax yu wér wax yu am solo sunu borom inspiré ko gis nga yàlla ni muy inspiré nit gis nga président ni mu doon ni mu li mu doon wax gis nga loolu bu wax noonu ne julli gi ñaari ràkka la mu sëlmal ñu ne ko jeex na mu bëgg a dolli tey jii moom moom moo nekk tey imaam bi bi nga xamante ni bii tey dafa yegg ci war a sëlmal te démb moo doon wax lële ay nit ne ko weddi lépp loo xam ne mës nga ko wax man jàpp naa ni ñi nga xam ne ñi ngi tëgg euh, bool yi ñi ngi koy wan ne ko nit ñi nga xam ñi lay dee sës ci yow rek parce que attention doon président par saa yi dafa garaaw mën nga nekk président gis nga lenn lu la yi mën nga koy bañ a gis de mën nañuy defar mbir yi ba nga xamante ni bii tey président tey bu ñu ma nga dem Kër Massar lu ñuy def Omar balee dëkk ba nettoyer organiser talgal ko ay nit maanaam ci mise en scène la gars yi dëkk président fu muy dem dañ koy defal mise en scène tegal ko loo xamante ni bi ñaay war a wax ñu tànn def nii def nii comprendre nga boo gisee sax léegi mi ngi ñu ngi commencé di bàyyi yenn boo yeeg yooyu di wax nga xamante ni bii dina dégg sax léeg-léeg loo xamante ni bii euh, da lay wóor ne la léegi ah, parce que loolu tamit dafa baax parce que tey bu ñu ñëwee ñun ñëpp ñu ñëw ñëpp di wax wax ju neex wax ju kii bu yàggee mu xam ne lii kat ak li muy gis ci kii yi waroon nañ donc il faut que gars yi tamit parensaay di bàyyi ñenn ñi ñuy euh, joxe seen kii mais tëgg bool yooyu bokk na ci li nga xamante ni bii man jàpp naa ni lu koy dimbali la ngir mu daa dee xoolaat euh, situation parce que tamit actuellement lu nit waxit da ngaa wax rek mais moom mi nga xam ne mooy ndey mi li waxagul démb nag bi ma dégloo xalifa Sall nee na ku koy séentu mu wax mën ngaa juum parce que gis nga dañuy jekki-jekki rek ne déposé na candidature comprendre que ca conseil constitutionnel nee na mën na koo bañ a wax jékki-jékki rek def ko. di xaar waaw ñuy xaar conseil constitutionnel. léegi kon ñi nga xam ne ñi ngi xaar naan ko kañ ngay wax ak kañ ngay kii mais moom gëm na ni ci ni mu comprendre président Macky Sall que ni mën na koo bañ a wax maaye dem déposé ji. Hmm. loolu nag nekk na loo xamante ni bii leneen la mais en tout cas li ñu koy xamal daal euh, tey di ko ko ñaan parce que réew mi dañ koo yëkkati teg ko ci loxoom. réew mi nga xam ne jël nañ ko teg ko ci loxoom nag li laay war a suuri nañ ko def noo xamante mën na def moom lu gën li Ablaye Wade defoon bañ a dem parce que Ablaye Wade woon day dem gars yi ne ko doo dem te moog Ablaye Wade bokkuñu ba tey position xam Ablaye bi muy nekk boobu euh, Ablaye dafa ñëw falu ci loo xam ni kenn limité wul woon mandat yi moom dafa falu nag ci lu ñu limité mandat yi constitution bi fi nekk dafa limité mandat yi te Ablaye Wade bi muy falu constitution boobu limité wutoon mandat yi moom moo ñëw dugal ci ne léegi mandat yi kenn mënu ta romb ñaar moo tax comme kuy jéem a tëkkale ñaar yi naan euh, Barthélemy waxoon na ni Abdoulaye Wade amoon na kii bokkuñu ñaari yi ñoo bokkul bii kii bi muy falu dañ ne ko ñaar yow mii di falu ñaari mandat munoo ko romb mu ñëw dëggalaat loolu mm-hmm. bokkuñu donc nag ngir yàlla li laay war a suur ñu ngi koy ñaan rek li ko ñenn ñi di bëmax te ñenn ñi ko ci bëmax du lenn tax ñu ko ci bëmax lu dul seen njariñu bopp xam nañ buy dem ñuy torox ñoom jàpp nañ loolu loolu rek mooy li nga xam ne moo tax ñu ko ciy bëmax waaye moom mën na dem président Macky Sall mën na dem tey delsiwaat ci réew mi laajaat réew mi sénégalais yi jox ko ko lépp nag mi ngi dépendre ci ni muy doxalee ci lii ñu tool mhm. waaw jeex na looy tëjee waa ñi lay jaajëfal rek euh, saa yu moom dama ah, koy bàyyi ci biir da ciy ah. wax da nga ciy wax problème grave ah d'accord kon ah, kon tëj bi rek mm. mooy euh, man damay ñaan rek ñu nekk ci kaso bi ñu bàyyi leen ak ku mën a doon ñoom abdu Karim Gueye ak euh, ñoom ñëpp ñu bàyyi leen même sax bu dee da leen di àtte ñu bàyyi leen mais aussi tamit di ñaan rek Sénégal suñu borom def fii def yu sutura defal ñu xéwal yu bari mais aussi tamit euh, ci justice ñu gën ci taxaw président doon naa ko xaar mu gën a wax ci justice parce que problème yi ñu am yëpp boo koy delloo rek euh, ci dart bi ci cosaanam mooy justice problème justice lan am mais bu justice amoon débat yi ñu ci débat sax du ko jar parce que lu lu xew rek dañ naan na yoon def liggéeyam mais ñàkk wóolu yoon moo tax ñu poser question yu bari kon ajaratu amatina solo ñu dem jëli rubrique Sa Ndiogou Mbengue dalal gannaaw. ay ca alaaji kàddu gaangoog ñu bàyyi la sa gan jóge ba Njàmbur Modou Gaye jërëjëf Adja ñu ngi am mbégte ak kontante di wax ni ñu ngi ci rubrique bu mag bi nga xam ni moom lañ naan xur dagg ngi <laughs> mi ci portable bi nga xamante ni bii moom lañ naan xurdab ñu dalal tey benn xurdab bu jógee ba Louga ñu naan ko